julli ci yonent bu tedd bi ñu sant yàlla bu baax julli ci yonent bu tedd bi di sant Serigne Touba di sant maam Mor Diarra borom Saam di sant maam si maam Cheikh Ibra Fall léegi nag cant gi ñu delloo ko ci Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba ñu ngi koy ñaan yàlla na fi yàgg te wér ci barke Yaaru Sóorulaay di ñaanal Serigne Cheikh Isma xalifa maam jaara mu yàgg fi lool ak i rakkam ak ak njaboot ak maam Mor Jaara borom saam gépp di sant Serigne Abdou Mbacke nag taalibey xale yi nga xam ne ñoo forme daayira bi ak sëñ Baara Xuréja sëñ Seexam sëñ Baara Xuréja kon kontaan dugg na ci mbir mi ndax mbir mi dafa yàgg lool te fan te yàgg gi ay xale yu ndaw rek ñoo ko formé woon bi ñu formé daayira bi seeni mag ko njëkkoon a formé bi ñu demee ci Serigne Saliou Mbacke mu ñaanal leen na leen daayira bi day jëm ca kanam rek ñaan googu nag moo topp daayira bi ba xale yu toogaatee ba Alaaji Baara toog di xalifawaat ci sëriñ Touba di sët njëkk toog ci xalifa gi moo tey tudd tey daayira bi tur wi ci nekk tey waaw kon sant yàlla mënut a weesu lii ndax ba koy def ngeen toog tey jii yéen ñi di koy def ci ay juróom-ñaari at ngeen commencé woon di ko def tey jii ba lii ñëw kon ñun sant yàlla rek la def di leen ñaanal ci kàttanal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. ak yokkute ak naataange te yokkute ak naataange rek nag moo ci am ndax li tax ma ne leen yokk ak naataange ci am Serigne Touba ku koy liggéey rek da ngay gën a jëm ci kanam rek ndax moo wax na yëkkatiku leen sëñ mu taxaane bu mu laal suuf waaye yéen dootu leen laal suuf de ñaan nañu ko ci kattanal yàlla ñaan ko ci barke Maam Mor Jaar ak Serigne Touba ñaan ko ci maam Cheikh Rafal ñaan ko ci Rasuul laay ngeen gi mi def ki bind ñëpp ki tax Serigne Touba ngeen gi mi ki nga xam ne yàlla moo ne tax ma bind jaam yi kon daayira bi yàlla na yegg fa ngeen bëgg mu yegg fa te ngeen ànd koog kattan ànd koog yërmande ànd koog wërsëg wu yaatu lu ci waay def ren rek bu déwénee yàlla na nga def lu ko duubal ci ci barke yaa Rasulullaay ci barke Makka ak Medina sant naa leen nag ndax daayira bi de ah man de am naa ci kontaane man mi ko àndoon ak yéen ba ngeen di tuuti ba nëgën si kon tey su ngeen demee tey jii ba ngeen xam ne fi mu ne nii yéen lu bëri yéen a ngi koy defal seen bopp lañ ci def di ak wér gi yaram di ko ñaanal jëwriñ ak i xarit tam ak rakkam ñi mu ko bokk ak Aliou Mbow Assane Mbow yéen ñëpp rek bàyyiwuma kenn ndax bu ma limee rek dama dun matal te bëgguma lim ki bàyyi ki kon maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yokkute ak naataange ak xéewal yoo xam ne fu ngeen làmb rek daj ko yàlla na leen ko yàlla may yàlla na leen may xéewal yoo xam ne lu yoo xam ne dañ leen ko doon defar rek tey ngeen wëlbati ko dekal defal seen bopp ba ku ñëw fekk leen te liggéey bu sëriñ Touba ku ci bokk ñu yemal ci daareb sëriñ Touba ak maam Mor Diarra ak maam Cheikh Rafal kon danañ ci war a kontaan lool ndax Cheikh Ibra moo waral lépp te Lamp Fall ci moom la wéeru ndax lépp Cheikh Ibra Fall la waaye Lamp Fall ñu ngi leen di ñaanal yéen it ak yokkute ak naataange ak xéewal ak ngëneel yoo xam ne ci barke maam Cheikh Rafal day law rek buñ laal suuf de ndax lamp moom lampam ñëpp ndax lampataal yoon wi ba yoon wi tey jii foo wëlbatiku maam Cheikh